wa mu àllafun ak ku ñu miinal xol moom nag nee na kaafirun mooy aji weddi yàlla ñu koy jox asaka yuus lu ba ngir bëgg mu tuub wa raqiixun akub jaam muminun bari aji gëm yoo taqu boobu def na ko goreele min xaa ca moom laa xaq da xurriyatin déet benn pas-pas ngor fii muy nekk ci moom wala uhoo te kilifteefam lil muslimina ñeel na jullit ña waxaari mun ak aji leb madinun mooy ku ñu yan bor kadalika naka noonee walaw maata ak doonte faatu woon na tadaayana kok leboon na laa fii fasaadin du caageenu ci yàq wala li axdihaa du caageenu ngir mën a jël asaka illaa an yatuuba ndare ba dafa tuub wa mujaahidun ak aji jihaad kadalika naka noonee wa aalatuhoo ak jumtukaayu jihaatam walaw ganiyan ak doonte day aji woomal wa fi sabilillahi ak ci yoonu yàlla wa fi sabilillahi wa bunu sabilin akub doxandee moom it kazalika naka noonee muxtaajun ku di aji aajowoo li maa jëm ci loo xam ne yu wax si loxoo dana ko àggale bu fa mu jëm fii xayri maasiyat njuludul ak mooy yàlla illaa an yajida ndare bu dafa am musallifan aji lebal waxwate moom ganiyun aji womal la bi baladihi ci ab dëkkam kon boo nee juróom-ñett ñi sañ a jëfandikoo asaka faqir ak miskin ñoo ca jiitu ka amul dara ak nga xam ne lam am dañ ko dunde ci at ma te amul fenn fu mu ko yaakaar ak fenn fu mu ko sukkandikoo kuy liggéey ca toppatoo asaka ja mel ne ka koy laaji ak ka koy dajalee ka téye ak ka sàmm ak ka koy séddale ñoom ñëpp moom lu ñu bari bari di àll daañu leen jox ca asaka ja ndax jox ñu leen ngir seenu ñàkk ak loru dañ leen jox ngir xam ne li ñuy def su ko kenn deful rek ñoo war a am asaka xëy na bañ ca jot kooku nga xam ne day toppatoo asaka ji moo xam da koy laaji moo xam da koy dajale moo xam da koy séddale dañuy sart muy ab julit te boole xam ak maandu ab yéefar duñ ko féetale lu aju ci laaj asaka mbaa wattu ko mbaa séddale ko ko xam itam du yéefar waaye dañ ko xam ci kàccoor mbaa daa umpale lu aju ci mbirum asaka wala sax mu bokk ci mbokk yorante bi nga xamee ne sëñ ñoo lekk asaka ba alxuraan da caa teg wal mu wallafati qulubuhum al mu allafa qulubuhum dañ caa wóote am na ñu ne ñi mu ko firee moom borom téere bi mooy yéefar ba ñu jox ko ci alali asaka ji ndax bëgg mu tuub mel ne kon xeetu campagne lay doon am ñu ne kay door a tuub dugg ci lislaam moom lañ koy jox ndax xolam gën caa dëgër am ñu ne nag ba dee léegi si moom du jar ñuy jox ab yéefar alal ngir di ko campagne ndax lislaam dëgër na dëgëraay boo xam ne jaratul loolu waaye nag kay door a dugg ci lislaam te léeg-léeg ay mbokkam jàmb ko bu toll ci xat-xat kooku moom ba tey yelloo nañ jox ko ko bu baax a baax wa fi riqaa bi moo ca topp jamono yi jaam xewee alali asaka ja mën nga caa jënd ab jaam boo xam ne jullit la mu soppi ko gor waaye du tax na nga moom kilifteef ga ndax alal ja nga ko jënde alali yàlla muy asaka ji kon taxul nga moom kilifteefam ba bu faatu woon yaa koy doon bu amul ku ko war a doon bu faatu woon tam alalam day dem baytimaal ndegam baytimaal am na su baytu maal amatit muy alal li jullit ñëpp rek waaye dañuy sart nag jàmbur ba ngay jënd di ko goreel ci alali asaka ja muy jàmbur sotti nga xam ne laalul dara dara ci ngor ku laal ci ngor mooy ku mel ne ku ab sangam wax ne ko su ma deexee gore nga ñu koy tuddee gannaawal wala jaam boo xam ne sàkkal nañ ko delee ne ko buñ ci àggee ñu goreel la wala jaam bu jigéen boo xam ne nga ko moom am naag moom doom àlli asaka ja bu ci dee jënd ab jaam ci yooyu jamono day jënd jaam bu sotti boo xam ne laalul dara ci ngor wala xaar yu nii na la ci alxuraan teg muy ñu yenu ay bor koo xam ne daa amee bor yoo xam ne ba muy leb loru moo taxoon mu leb waaye leb rek di yàq nit ki di mooy yàlla ci naan ak xeeti mooy yàlla yi wala leb rek di ko noose ci la neex ca bakkanam mbaa mu ne woon naa leb rek ba ami bor ndax nee nañu ko ami bor da nga yeeyoo asaka su fekkee loolu tax moom boree du tax kenn sañ koo jox asaka lu may nag mu tuub rëccu loolee nga xam ne daal bu doon tey jii moom xalaatu ko kon moom bu mu gisee mu loro ci ci yooyu jamono res naa fàtte la weesu woon te jox ko ba ci sax ku génn àdduna te bàyyi ay bor te bàyyiwut lu ko mën a fay gisuñu kenn ku ko fayal manees na koy jox alali asaka ñu fayal ko ca bor yooyee ndax faatu ga du tax bor ya wàcc ko te itam nag day fekk kooku amee ay bor bañ a bokk ci ña nga waxoon ne kenn du leen jox asaka bu dee jaam mbaa buy ab yéefar mbaam bokk ci jege ñaale yoonante bi da nga ne woon ñooñu kenn du leen jox asaka ba tey borom bor yi bu fekkee ñooñu la bokk kenn du ko jox asaka wa fi sabilillahi moo ca topp yoonu yàlla yoonu yàlla nag boroom xam-xam yu njëkk yi dañ ko yemale ci jihaad ci yoonu yàlla maanaam jàmmaarloog yëfër yi ndax aar lislaam ak yaatal lislaam kay dem ca jihaad ja doonte sax ku bari alal la manees na koo jox lu mu jëmale ca jihaad joojee manees na ko caa wutal itam ngànnaay ya nga xam ne moom lay jihaate bu demee kon bu fekkoon ne jihaad ci yoonu yàlla ba léegi mi ngi am kan daañu mën a jël alali asaka ja jënd ca ay ngànnaay jox ko ñi nga xam ne ñoo nekk ca toolu xarib lislaam ba am na nag ñu yaatal wa fi sabilillahi ji yoonu yàlla ba di ci boole waale lépp lu baax mel ne tabax jàkkaak tabax daaraak yeneen yu deme noonu waaye daal waaye ñu bare bari ànduñu ci loolu ndax dañuy wax ne innama ji tàmbalilaay ji day takk te boo nee lépp lu baax rek ci lu mel noonu mooy su caa def asaka du amati ab yemukaay wa bani sabili nag moo ci mujj ab doxandéem koo xam ne ab doxandéem la bu takk ci béréb amul lu ko jàllale ci alali boppam fa mu jëm kon dañuy seet bu fekkee ne gisul ku ko lebal te fekk bu àggee mën a fay nga xam ne kon benn bari na alal sax fa mu dëkk waaye gisul kenn ku ko lebal mbaa boog am na ku ko lebal waaye amul alal ju mu koy fayee bu demee kon manees na ko jox asaka tàgganti ko ci kaw nag tukkim boobee bañ a nekk tukki mooy yàlla su fekkee tukki mooy yàlla moom di su ko tàgganti ci jox ko asaka nga xool ba mu ne madinun da caa teg kazalik ba mu ne wa mujahidun ba tey kazalik wa bunu sabilin kazalik da ci wane ne ñett ñi comme ci man di doon day fekk luy tee ñu jox ko asaka bañ a am te loolu mooy ku ci ne na nekk gor di jullit te bañ a bokk ci mbokk yonante bi yonante bi waxoon ne ñoom sañu ñoo lekk asaka bu nu di ba soppeef na insaarul modd tarri ëfal kañu loruloo maanaam yaatal ko ca laa taamimul asnaafi du caagéenu matale xeet ya wal istinaabatu ak wuutal ga mu ne sopp nañ boo joxe asaka ka nga xam ne moo ko gën a aajowoo gën caa loru nga jox ko lépp la ngay jox ña ko tane sopp ñu nag nga ne faaw ni laay ji indee mu juróom-ñett suñu bokkut danaa fexe ba jox ñoom ñëpp fexeel rek ba ka ngay jox asaka ja bokk ci kenn ci juróom-ñett ñooñu lay aay rek mooy nga jox ko lu ëpp lu ko doy ca at ma li fekk jëloo ko lu ëpp la ñuy jëfandikoo ca at ma rek dal nay baax ba tey sopp nañ asaka ji nga bañ koo joxeel sa bopp te joxeloo ko keneen ko ci ragalee ne bu ñu séenee ngay joxe da nga ca bëgg bëgg caw tagg loolu mën naa tax sa jëf du sell de nee nañ bu fekkee ne doo ci seet dara lu may yàlla moom asaka farata la boo koy joxe kon nga fisal ko ba ku fàtte woon fàttaliku gu nettoon a joxe roy ci yow joxe loolu kon mooy gën waaye nag boo ci ragalee ngistal moom nga joxeloo ko keneen te bañ koo joxeel sa bopp way jaasa dagan na daf xuxaa jiiñ asaka ja maanaam jox asaka ja rek li xaa diirin ñel aji àttan xal kas bi ci fàggu ci yoonu Maalik moom nangu la nga jox asaka koo xam ne wér na am na kàttan mën naa fàggu dafa taayal rek yàccaaral ndeka moom xës na loolu rek yoon nangu na ci ni waa Maalik gisee ñu jox ko asaka ndax bi mu ne lil fuqaraa yi amu ca genn ràññeel ñàkk na rek manes nga koy jox asaka wa kifaayatu sanatin doyuk at wala ak sara ak doonte nekkoon na di ëpp min hu ci nisaab ka ñu sañ jox asaka moom mën nga koy jox ba jox ko lu ko doy ci at ma te ka ni ngay joxe mat na ko mën nga koy jox lu ko doye jëfandikoo ci at ma te bañ a weesu nag lu ëpp at ma ni ñu ko waxe woon léegi doonte sax la nga koy jox day ëpp nisaab nekk nga jekki-jekki jox ko juróom-ñaar fukki junni yooyu CFA waaye xam nga ne moom ëpp ko ca at ma loola dara nekku ca woowoo yiqun dagan na génne xaalis xan dahabin wali furus wax ak suuf ak safaanam ba bi sarfil waqti ci weccatu waxtu woowee mu ne nag wurus ak xaalis mën nañoo weccente ci nga yore xaalis war caa génne asaka bàyyi ko joxe wurus mbaa nga yore wurus war caa génne asaka bàyyi ko joxe xaalis lu ci nekk sañ nga ko waaye da ngay seet nag ci yooyu jamono wurus ak xaalis nu seen weccat demee ci yooyu jamono waxtu war la ñuy seet ni ñu wecc kon te wurus ak xaalis ci yooyu jamono duñ seet la weesu woon wala lay ñëw ca kanam waxtu rek la ñuy seet wa wajaba war na niyatuhaa ak yónnee moom asaka ja wa tafriqatuhaa akuk tasaareem fawran ci lu gaaw di mawdixil wujjoo bi ci barabu warga aw qurbihi wala jegeem illaa li aadama ndara jëm ci ku gën a ñàkk fa aksarahaa kon na jox la ëpp ca asaka ja la xoo ñeel ka gën a ñàkk bu ne nag asaka ak jaamu yàlla la faaw boo koy joxe da nga ci am yéene mooy dogu ci maa ngi joxe santaane bi yàlla bii muy asaka waaye moom nag bu fekkoon ne ku la bett ne la waaw li ngay joxe lu mu doon nga ne ko asaka laay joxe rek jooju yéene doy na waaye luñ nangu nga jox koo xam ne ku loru la gannaaw ba sam xel dem ci ah man kat waroon na maa joxe nangam ci asaka kon daa ci boole lee ma ko jox wàññiwaale ko tey mottali ba mat loola du baax bokk na ci faratee asaka ñu bañ koo toxale fa mu nekk di ko yóbbu feneen te fekk ñu ko yoroo nekk fa dañ ko joxe foofee nga xam ne fa la alal ji nekk wala boog foo xam ne soriwu ko mais naa takk nag ne bés ko weesalee du tolloog distance doxu wàññi mel ne ñu ne bés ko weesalee soixante-douze kilomètres jëm ca kaw waaye nag lu gën a jege rek gën a yey ndegam alali yàllaate ñu gën a jege yeewoo nañ ko kon bul ko toxal loo ko sori sori nag moom bul ko génne distance dox wàññi bi ñu wax léegi lu ne nag nga xam ne ñu gën a sori dañoo gën a loru ñu nekk fi yow kon mën ngaa joxe lenn li fa nga nekk alal ja nekk fa li ci ëpp na nga yóbbu ko ci ña nga jàpp ne ñoo gën a loru mel na nga nekk fa réewu tubaab yi di fa liggéey di génne asaka gis na am na ñu ko yelloo foofu waaye fii nga bàyyi ko ñoo ci gën a loru kon na ngay joxe lenn la foofa li ci ëpp nag nga yónnee si ko fii ci ñi nga xam ne ñoo gën a loru teew nag boo joxe woon lépp foofa mu baax ba tey ndegam ñii ñu gën a loru boo yónnee woon lépp benn yoon bañ caa joxe foofa dara itam mu baax wa aji sa adoona sax li mislihim ñeel seenum kem waaye nag laali duunihim du jaageenu ñeel ñu leen yées fil xodd mi ci ñàkk li mu wax mooy fi nga nekk am na fi ñu yellu asaka am na feneen fu sori foo xam ne moom it ña fa nekk yelloo nañ asaka te it ñoo yemoo dong ci ñàkk ak loru ak aajowoo ci asaka ji nga weesu fi nag ñii fi nekk dem joxe ko ñu sori ñooñee koy dutee ñu jàpp ne joxe nga asaka ndax rek da nga am bàkkaar nag ci weesu ga nga weesu ba nga ko waroon a joxe dem joxe ji ko fu gën a sori te ñooñu gënuñoo ñàkk te buñ gënoon ñàkk waxoon nga léegi ne mën nga faa yóbbu lépp mbaa boog nga yóbbu li ci ëpp foofa te leen la nga joxe ko fa nga nekk nga seetlu li mu ci teg nag fii nga war a joxe asaka ji ñu koy yelloo nekk na fa nga jël asaka ja jox ko ñoo xam ne ñoo tane yi nga fi bàyyi loolu moom moo du baax mel ne nga nekk fii ci kaw gi ñi fi nekk gën a loru nga jële fi asaka ji jox ko ñu nekk ci taax ya te ña ngi ko jox ci taax ya bu ñàkkee itam ñoo tane ñii ci kaw gi loolu moom du doy loolu moom du baax ka an xaddama niki bu jiitalee muhasharan lu ñu asakaale fukkeel mbaa genn wàllu fukkeel aw daynan wala bor aw arban wala marchandise muxtakaran mu demuñ dakar ci xabalal xabli ci njëkk nëb ga aw duñaat wala jiñeef ko maanaam joxeef ko moom asaka li xayri mustaxiqin ñeel kudul aj yeyoo aw liman wala ñeel koo xam ne talzamuhu dana ko war nafaqatuhu dundam ba daa waxoon ne fa alal ja nekk nga war faa joxe asaka ja boo ko jéggee dem fu sori foo xam ne waru ko fa woon a yóbbu te far sax ñooñu nga ko yóbbu leen ko jox ñoo tane ñii nga fi bàyyi dane woon kon asaka ja du doy am na sax ñu wax ne dana doy waaye wax ji gën a wóor mooy du doy mu dolli ci nag asaka yu ndey nga xam ne benn asaka mooy fukkeel ba wala genn wàll fukkeel ba nga joxe ko te waxtu wa jotagut asakay mbay moom faaw nga bàyyi ba waxtu wa jot te loolu mooy mu ñor xool ma kon bu wàkkamte woon mbay mu ñoragut mu daal di gaaw bu dee pepp mu génne ko ci pepp mam waroon mbaa leneen ndax yàkkamte rek koy du baax du teebu mbay ma ñoree mu war a génnewaat asaka wala bor boo xam ne wuru ko asakaal te jotu ca mu daal di gaawantu asakaal ko te jotu ca bu dee nag ni jaaykat yi ëpp jaaye mooy di jaay rek ca njëgg xew prix normal jënd tegaat moom ñaari bor rek lañ lërte asakaal te jotuñu ca benn ba mooy luñ able loo xam ne ngir yàlla rek tax ñu able ko lu mu yàgg yàgg moom lu feet ñu see jot asaka du ca war kon buñ ko teelee génne asaka te jotuñu ca du doy du tee buñ ci jotee rek war a génnewaat asaka ak bor boo xam ne que leen ko ameel jub na sax waaye daa amut mënta fay yaakaaruñ ca jot mbaa boog mën naa fay waaye dafa dëngte mën ñu ko yóbbu ci yoon ba mu fay dañ ne woon bërëb mel na faaw day bàyyi ba jot ca door a génne asaka ja kon nag bu wàkkamtee daal di génne asaka ja du doy bu jotee ca bor ba faaw mu war a génnewaat asaka bu dee nag kay dakkar ci maanaam kay jënd di xaar nag ba loola ñëw mu jaayee ko njëg gu bare bari dañ ne woon kooku muy bor muy marchandise bala ko ca asaka war mu jot ca te muy wurus mbaa xaalis nga xam ne kon kooku war buñ ko ameel mbaa marchandise mu mu jaay te jotagu ca bu ko teelee asakaal du doy du tee rek bu fayoo bor ba muy wurus mbaa muy xaalis mbaa ñu fay ko marchandise ma te fayoo ko ko wurus ak xaalis mu war a génnewaat asaka ba ca topp mooy mu jox asaka ji koo xam ne yelloowu ko doonte sax daa foogoon rek ne yelloo na ko tax mu jox ko ko waaye fekk na kooku yelloowu ko du doy day mel ne joxeegut kon balaa jox kenn asaka na ko wóor ni kii bokk na ci ña ko yelloo jox ba ca topp mooy mu jox asaka ji koo xam ne moom moo ko war a dundal ku war a dundal di ki soxnaam wala bu fekkee moom dafa am te ndey nag bàyyam ñàkk nga xam ne moom la war a dundal ba leen joxe asaka day mel ne joxewut asaka képp koo xam ne yaa ko war a dundal rek moom waru koo jox asaka boo ko joxe asaka rek du doy aw dafa wala mu jiiñ maanaam mu joxe aru don marchandise aw jinsan wala aw xeet xan xëyri yooyis warul moom la war a génne asaka moo xam da di mbay moo xam da di ak jur moo xam day wur sa xaalis su ko bàyyee bañ koo génne xanaa seet lam tolloo ci marchandise mu génne ko bu baax day mel ni joxewul asaka marchandise mënta wecc ci la war a joxe asaka moo xam ci mbay la moo xam ci jur la moo xam ci wurus ak xaalis la ba tey yaari xeet yoo xam ne bokkuñu na seet xeet la war a génne asaka mu génne ci asaka bu génnee ci leneen bëgg mu wecc ko du doy mel ne mu amee tàndarma amee reseñ mu war a génn nag ci tàndarma bàyyi ko seet lam tollool ci resoñ mu génne ko ci resoñ mbaa safaan ba bu baax ba ci sax jiiri sëg yi doon juróom yaar bu waree génn ci sëg ñoo mu bàyyi ko génn ci ñeneen sëg ba tey du doy ba sax su waroon a génn mboq mu bàyyi ko génn ceeb mbaa mu war a génne asakay ceeb bàyyi ko génn mboq ba tey du baax yéenti ame diw kum ci war a génne asaka mu bàyyi ko génne ko ci keneen du baax illal hayna ndare kee xan xarsin walis mbay wa ma chiyatin akuk jur fattu jisiwu moom dana doy fattu jisiwu dana doy bi kurhin ànd akuk sib su waree génne nag asakay mbay ni ki dugub mbaa gerte wala asakay jur ni ki xar béy mbaa nag mbaa gëléem mu tey nag mbay ma mbaa jur ga seet la war a toll ci xaalis mu génne ko joxe dana doy asaka wàcc na ko waaye def na lu ñu sib kon gerte gi ñuy bay lañ gën a taamu mooy nga génne asaka ji jëmmi gerte ga teewul nag boo ko jaayee génne asaka ci njëg ga mu baax ak jur boo ci war a génne asaka nga téye jur ga seet lam tolloo ci xaalis joxe ko dana doy asaka na la wàcc waaye def nga lu ñu sib nee nañu muurum koor it noonu la mel bu ñu nee lu ëpp ci lañ dunde foofa lañ ko war a génne moom nag mu génne ko ci xaalis dana doy waaye def na lu ñu sib moo tax mu ne wa hada chamilun li zakatil fitri teewul nag fii ci réew mi moom bari na ñuy ubbee ne li nga nar a joxe ci pepp mbaa ceeb ci muurum koor nga joxe ko ci xaalis moo gën gën laa noppal gën noppal ka nga koy jox ndax ñu ne boo ko joxee faqir mbaa miskin day dem di ko jaayal rek war ko mën a jëriñoo li jëpp du ko jëriñoo noona fu mel ne waa Màkka ñoom dañuy wax ne dañu war a sàmmanteeg cosaan la génn murum koor ci lañ ëpp a dund ca barab boobee ndax ba ñuy digal génne loolee fekkoon na wur sa xaalis bari te taxutoon ñu jox nu ca ndigal te it daga maye nañ murum koor mi bu ko rete gi desee benn fan ba ñaar nga daal di koy génne kon mën nga koo teel a génne ci lañ ëpp a dunde foofa jox na ka nga koy jox bu ko soobee balaa àgg ca bisub korite ba moom mu jaay ko kon mënees naa takk ne la nga war a génne asaka ja boo ko bàyyee génne ko ci leneen du baax lu may yaar yi nga xam ne dana baax waaye bañ gaa defa gën mooy nga war a génne asakay mbay mbaa asakay jur yow nga joxe nag xaalis mbaa wurus lu bokk teg loolu rek la nga war a génne asaka boo ko bàyyee génne ko ci leneen du baax moom la wax ci sarabina wa xaasilu ma fil matni shaarihi mel ne wa qawli shaarihi kama fi l asl annahu ida axraja al ayna xan il xarsi wal maashiyati yujisiu maa al karahati wa amma ixraaju xardi عنهما أو عن العين فلا يجزئ كإخراج الحرف أو الماشية عن العين أو الحرف عن الماشية أو عكسه فهذه تسع المجزئ من حسنتان كتقديمها نك أرجيت لمم أسكجة بك شهر تلمل نكوار في عين تكي وماشية أكو جر su waree génne asaka ci wurus mbaa xaalis laata muy àgg ci waxtu wa mu daal di koy gaaw a génne waaye diggante ba nag lu tolloog war rek la mbaa mu yées ko loola kon def na lu ñu sib waaye du ko tee doy dañuy wax ne nag bi ko chauffeurin mënoon naa dindi kaaf gi ndax dañuy defe ne yu ëpp yooru dana baax fekk na lay baax daal mooy boo teelee génne asakay wurus mbaa xaalis di waxtu wa jotagut sa digganteeg dat ba toll ci yor dong mbaa muy yées ko waaye su ko ëppee rek moom du doy boo ca àggee war a génne waat mel ne ku julli woon te waxtu wa jotut ak jur ba tey noonu la bu fekkee amul kuy laaj ci asaka nga xam ne bu waxtu wa jotee rek yaay génneel sa bopp nga xaar nag ba dat ba des lu tolloo gu weer mbaa mu yées ko nga daal di gaaw génne ko dana doy waaye def nga lu ñu sib ba tey bu dee commerçant boo xam ne day jaay ci prix normal rek nga xam ne at mu ne mu xayma marchandise am ak xaalis kaasam génn ci asaka su fekkee dat ba mu war a asakaal dafa des weer rek mbaa matu ko mu daal di yàkkamti gaaw xayma marchandise ma génn ci asaka dana doy waaye def na lu ñu sib li gënoon mooy bàyyi ba àgg ca dat ba ci boppam jur moom bu fekkoon ne am na laajkatu asaka ni ki jamono bu njëkk ba